الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ñu ngi nuyu mbooloo mu tedd mi fi teew yëpp ak seen sant kàddu yi ñuy waaj a jël mi ngi jóge ci son ministre Macky Sall président de la République du Sénégal ñu yónni ñu fi ci délégation bi ñu lim léegi yónni ñu ci wetu xaritam kilifaam wëlëreem li nga xam ni yàgg moom président ñu bëri di dégg wax ngeen ko si Serigne Ahmed Cheikh Tidiane Seck Aliou Thielema président wax ni bu ñu ñëwee nañu jël nuyoo yu gën a sell teg ko ci loxoom moom nuyu tamit. kilifa diine ak kilifa aada yi yëpp ndax loolu mooy Sénégal président wax ni ëtt bii de di Thiénaba ëttu diine la ëttu islam la te loolu kuy sore sore sore la jóge ndax suñu maam amari nga sekk biñ fi jógee ñu woo ko ci xettali islam mu def ci jaloore yu rëy ci Samba loolu ñun ñëpp ñu koy jàng ko seetlu ko xam ngeen xamal ñu ko it ba mu ko amee tam dellu si jaar fi mu war a jaar ci biir Sénégal ñëw fii ci Thiénaba sant wax ngeen ko léegi 1882 boobu ba léegi ak mu jot ngeen def tànk bu mel nii tànku islam. ci gàmmu gi nga xam ni mooy màndargaal juddu sangu sangi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ren ci téeméeri édition ak fanweer ak juróom ñaar cent trente-septième édition te dara taxu ko jóg sargal sangu sang yi Muhammad sallallahu alayhi wa ko ci alquran yi nga xam ni moom ngeen di jàng faj bi ba tey jii mooy di kon sëriñ bi président ñu ngi lay féetali ko lële mun na ko waxee ba ci des ñun li wax ni suñu Sénégal bii ñun de islam bi la ñu xam. islaamu jàmm islaamu salaam islaam boo xam ni fitna lalu ba tax na moom de ñu ngi ñaan di la ko ñaan ñu continuer xale yi suñu islam boobu te dàq te xeex bépp kuy mbubboo leneen moo xam ne naan turu islam la te di def naka sa dul noonu di indi fitna di indi jàqare te loolu lépp ñu gis ko ci ay réew yu ko am muy terrorisme bi am ci àddina bi ñu ñaan yàlla loolu yàlla na yàlla musal ci suñu réew muy Sénégal musal ci tamit réew yooyu nga xam ni loolu am na fa yàlla na ko yàlla teg. wante day président nee na yaakaar na leen ci loolu ci jàngal xale yi teg jub moom ngeen dëggee moom ngeen yendoo teg xale jub ci yoonu siraatal ba nga xam bu ëllëgee ñooy doon suñuy jarbaat suñuy doom yu continuer liggéey boobu suñu maam Amary façon da ngay continuer ko ak tarixa yi nekk Sénégal yëpp président wax ni moom day ginnaaw bi ko askan yu wóolu dénk ko Sénégal ci anam yu rafet fas yéene lii nga xam ni moom la ñu yaakaar ci moom mu continuer ko def ngir suñu réew jëm kanam te faw ci réew yi nga ni jëm nañu kanam aw faw Sénégal aw moo taxit mu indi li ñoom plan Sénégal émergent fexe réew mbay mi dox te yàlla ñu ci demal suñu moo xam ci wàllu gerte moo xam ci wàllu ceeb moo xam ci wàllu yeneen xeetu dund fexe ba càmm ngi dox gis ngeen ko bëri bi démb ni mu demee dugg fexe ba napp bi dox te mi ngi ci lu bare bare bare yi mi ngi ko ciy def ginnaaw loolu mu fexe tamit infrastructure yi dox parce que nit bu liggéeyee am gerte wala mu am dugub wala mu am yeneen revenu faaw mu am muy jaar transporté ko moo tax mu indi projet yu mag yooyu defar ay autoroute te bi ci gën a mag nag doon ci laa Touba yal na yàlla def ñu fekk ñu ñëpp liggéey boobu egg président wax ni moom day fas yéene na ñi néew doole mu jàppale leen mooy bourse familiale yi président wax na ni moom nga bëgg na kër ku ko taat mën a faju ci anam yu rafet mooy di couverture maladie universelle président wax ni bëgg na toppatoo njàng mi moo taxit mu defal université yu bare bare yoo xam ni ku ci ne mat na fanweeri junni étudiant moo xam jàng ñaar la moo xam Sine Saalum la bu ñu tuddee ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass président wax ni loolu it suñu dëkk dëkku diine la dëkku islam la kon nag war nañu toppatoo famille religieuse moo tax mu tàmbali di liggéey liggéey bu muy liggéey ci këru diine yëpp ngeen li mu def ci këru diine yi bërëb bi mu fi ñëwee sëñ bi. ànd na yow te pose première résidence bi nga xam ni moom lay def fii defal ko xalif bi defal ko ganu xalif bi wax na ni bëgg na incha allah ñu fi yàlla bàyyi ñu ñëpp déwén ci 2017 bi fi ñëwaat dina ziyaare mu ñëw joxe caabi yooyu nga xam ni moom lay fii nga ni du cérémonie amee du jar sax. ñuy def ay tànk wala yooyu en tout cas am lu ko mën def loolu ci la président Macky Sall nekk bu mu def fii nag na def yeneen këru diine yi nekk Sénégal yi kon nag sëriñ bi ñuy sàkku ci yow nga ñaanal ko moom président Macky Sall yàlla may ko wér may ko gudd fan ba lii mu tàmbali di ko liggéeyal Sénégal ñu ñëpp ñu teg suñu bët yàlla may ko mu am kàttan ak wér gu man-man ba man koo moom rek président tam wax nañu ñaanal Sénégal yëpp di am ndax jàmm ci la lépp xaj kon nañu continuer di ñaan jàmm ak salaam am Sénégal yàlla tàppe xol yi ñëpp bokk ndey bokk baay ndax suñu Sénégal bi ñun ñëpp ñoo bokk loolu ak yooyu le président waxoon ni bu ñu egsee ñu retenir su amee lu ci jub ci kàddu yi ma waxoon su amee ci dëng xëy na suñu mata ji wala suñu xel fàtte moo tax egg ñu ci loolu wante yéeneen daal li may eggalee lu ko tëjee mooy ñu ngi lay fëttali kóllëre ak sant ak gërëm loolu laa mën di ko wax ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant wasalaam. jërëjëf monsieur